loolu yàlla nañ ci yàlla musal amiin bu <coughs> jëkk ba nag waxkat yi ñu nga xam ne dañ leen daan tànn sax su mbooloo taxawee ñu di leen wax loo yaakaar nañu seen kàddu gu neex yaakaar ci ñoom seen jëmm doom aadama yi sopp nañu ko dellu ci yaakaar ni jàmm rekk lañuy wax ku leen mën a yónni it noo mën a jëlee wax ja ñoom danañ defar seet kàddu ba nit ñi dégg ko ñu ko bëggee. te waxtaan wi defar moo ko tax a jóg am na solo ñu dimbalewante bu baax a baax ak sunu njaboot. dëgg ndax nit am na jotu njaboot ba di waxtaan ak moom ne ko jombal lii ndax nit ñaa ngi waxtaan ak seen njaboot ci li ñu war a jomb am déet ndax it nag bu fekkee ne jom noonu la toll dafa di loo xam ne lu mel ni garab boo jëmbat la. da ko war a suuxat ana la koy suuxat ndax ñi ngi koy def ak xale yi ba léegi loolooy sama problème ana lan moo tax nit romb ndeyam ak baayam bu fekkoon ne xam na luy jom dem fekk nit ku tëdd ci biir këram mu dajji kër ga jël alalam <laughs> te nekkul ku xiif nekkul ko man ndax la war ci toppatoo du rek sang ko du rek jox ko yére waaye wax ko moom mooy kat ba yenn waru koo def ndax loolu ñu ngi koy def ba léegi dama gëm ne loolu tax lu réer ci juddu waaw kay feeñ ci jikko mu ci jikko mhm. waaw wax nañ ni lu réer ci juddu mhm. feeñ ci jikko mhm. waaye tubaarkàlla juddu sax xëy na ci ñi ñu koy waxee du ñenn ñi dañu am juddu yax yu rey ñenn ñi am yax yu juddu yu ndaw mm. mën naa bañ a feeñ ci jikko jikko boroom a ko yàqal boppam boroom mooy yàqal boppam jikkoom tubaarkàlla duma wax ni yaratuñu xale yi xëy na man su ma ko defulit am na ñu koy def am na ñu koy def mm-hmm. su ma mënta dajale sama njaboot waxtaan ak ñoom it am na ñuy dajale seen njaboot yi di waxtaan ak ñoom waaye ki nga xam ni dafa tëdd ba guddi mu jóg dem jëli yëfi jàmbur ñu di ko dàq muy daw buñ ko téyee di ko dóor dañuy wax ni amut jom waaye ñàkkul jom rekk ki em ca dafa mànki su matoon sëkk dafay xool ca ñamu bàyyi ñuy nelaw ak ki nga xam ni moom la fekk mu tëdd di nelaw te li mu am moom ko mu lew ko doom waaye la ko xelam di may lépp mooy jóg rekk dem yàq ñoo ñooñu ci yàqkat yu mag yi ci lañ bokk <laughs> di nuyu kilifa yu tedd yi jiite waxtaan bi di nuyu it képp koo xam ne teew nga fi eh, xam naa ne la ma cay war a njañ sa sax du bari daanaka wax nañ lépp

daf ñuy wone tolluwaayu wax ba suñu wax ñu wax lu baax euh, tamit euh, lu ñu war di baye xel moy la sax nit ñi ñu sago ba la wax la wax sax mm. tamit ci sa nite mm-hmm. war nga ségg mm-hmm. ndax ma ngi euh Idrissa bëss sa place la la euh, rek nombre ñeenti zéro la. waaw su la koolee boo wuyoo rek. boo yàlla mi ma tiim ma ne Idi xoolal ma génneel ko nombre fekk dañ ma woo ci bitim réew. Eh. yenn saa yi day nekk ay zéro. yenn saa yi nekk naay naay naay ma ne ko am na yoo xam ne boo ko di dégg. waaw yooyu war nañ ko moytu te war nañ am leneen lu ñu war a waxtaanee lu dul. sos wax boo xam ne ñëpp ay tasaaroo. Mm. jaxasoo ah. nañ ko moytu. Mm. Eh, la may gën a wax sax mooy xam nga wax sax daanaka jëf la. Mm. te jëf it amul tànk. waaye jéggi na ay dex moo tax dañu war di seet wax te man dama foog ne sax wax mu ngi war a yaru maanaa fa nga xamee ne noppi war naa mën a am. Mm-hmm. foog naa daal eh, loolu laa ci doon janse su ko defee ma bàyyi mbokk yi. jërëjëf eh, li ma bëggoon yokk ci wax ji rek moo di ne léeg-léeg. wax bu jibee mhm. ki ko war a dégg dina ko dégg waaye ndax dina ko nangu mhm. moo dina mbir mi buñ ko seetee dëgg-dëgg euh, kërifa yi dañ ci am duwaar bu rëy boo xam ne ni mooy li Babacar doon laaj noonu mm. loo xam ne dañ koo bàyyi mm. am na ku fi wax ne bu njëkk mag ñi ñooy wax xale yi noppi mhm. léegi nag kenn ku nekk dañ la ubbil bunt boo xam ne dafa mel ni ko dañ ne lu la neex wëndeelul ba tax ne mag ñi seen bopp ñooy toog di wax ne njaboot gi njabooti kanaara la mooy dañ la jiital mm. waaw ku xamut nag <clears throat> dimbali wuñ ko wanuñ ko. Mm. Mm. su jiitee ndax yàq am du am. Mm. problème bi ñu am yëpp tey bis ni ki tey mooy. Mm-hmm. jàngaleetuñ. Mm-hmm. tuñ waxuñ li ñu war a wax bu njëkk mag ñi dañ daan toog dajale njaboot gi guddi bu ñu reeree ba pare di lébal xale yi bay nelaw. loolu yëpp mooy pour. seen xol ak seen xelaat yi nañ ko yokk nañ ko gën a yaatal. Mm-hmm. xamal leen li nga xam ne mooy lu baax ñi ko daan misaal ci ay. njomboor ak yu kenn yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu léegi da ngay dem ci school yi sax boo demee comme ñun ñuy jàngale léeg-léeg nga nekk ci classe boo xam ne. Mhm. da ngay gis way jur wu ñëw. Mhm. naan la suma doom dafa ñëw report nanga a nangam lu tax nga def ko nangam a nangam. waaw xale bi ngay jàngal. su demee ba yëg ne yow li nga ma def waroo ma koo def te ki lay jàngal moom xalaatam yépp mooy na nga nekk ni ku baax. <laughs> su ko defee kon kooku googu xale bu demee ba yaakaar ne waroo maa def li wala ñemewuloo ma def wala soo ma defee li am na fu ma la war a yóbbu foo xam ne da nga toro waaw ki lay xamal di la dimbale. su mhm. fekkee bu ëllëgee nga yóbbu ko foo xam ne moom da ko fa toroxal ndax kooku dal la waxati lu baax am ci moom lu baax kon yii mbir la yoo xam ne kenn ku nekk dama foog ne sa waru gar soo ko xamoon mhm. soo si toogee rek jàmm rek mooy lii taw ndax dañuy wax na yar yaraatikat yi dañuy wax ñu ne mhm. Euh, comme ni ko arado waxee atiflu laa yaxtamu ilaa bi nafsi ñu ne xaleel euh, itteewu dara lu mooy boppam rek moo tax léeg-léeg Babacar nga ñëw rek sa xale bu ndaw ñëw fekk la fi nga toog jël ndox sax sotti ko wala jël suuf sotti la ko dal di ree mu ngi lay mu ngi lay xool yow ci sa ndax lii naqar la wala naqar la dara defuloo benn action rek na lii lu baax la su ko defee kon euh, li ñuy li may yokk ci loolu mooy kilifa yi am nañ responsabilité bu baax a baax a baax kii mm-hmm. mm-hmm. na mag ñi daan defee boo defaan demoon ci mbedd def loo xam ne waroo koy def sa moromi bàyyi sa moromi nijaay sa moromi yaay gis la moo laa def loo xam ne doo ñimee àggee loola ci kër ga boo jooyoon nit bala ngaa àgg ci kër gi da nga fomp say rongoñ lu tax mooy boo demee sa bàyyi nga mu laaj la lana loo doon jooy nga ne ko bàyyi diw sangam rek mu dellu waaw waaye nag yar bu baax boobu mag ñi bàyyoon fi ñun yaakaar nañ ne loolu léegi dafa wëy moo tax bi mu paasee nag lu bon rek la moo tax ñun salaa salaam wax nañu kàddu goo xam ne gu am solo la mm. mu ne ñi gën ci nit ñi mooy ñi may ñi may dundal ñi ma bokkat jamono di dund ña ca topp ña ca topp kon ndeke nuñ gën a sore yonent bi rek di gën a bon mënuñ ci dara nag xanaa ñu jéem rek wasalaamaaleykum wa rahmatulah na ci tuuti lan tax bun aadama utee yeneen rab yi mel ni gaynde yooyu suma bunti jànga mooy ñun mun nañoo communiquer mun nañoo wax te wax bari na façon mm. jaan itam jéem naa laal tuuti foofu war naa ko gën a faram-fànsa waaye du wax rek de wax wax ak xalaat ñooy ànd ñaareel si suñ bunti jàng mooy ku mun ku ku xalaatam baax moo dee mun a wax wax ju rafet parce que anglais ne du li nga wax moo am fayda waaye ni nga ko waxee gis nga moo dee indi yaaxa yaaxa te wax sax pour ma yokka suñ bunti xam-xamati ëppa rek wax verbal bala bala bala yaram sax dafa wax xam nga suñ culture bi fii am nañ ciipu am nañ xeelu yëpp wax la communication la wal nañ cee bàyyi xel parce que gis naa ñoo xam ne kenn dafa xeelu nit rek ba tey du ñuy wax mut na fukki at du ñuy wax mu ne def ko xeelu daf ko si tax gis nga communication la ah wax nag dafa des tam si situation bi loolu la en psychologie wax situational behavior am na ñoo xam ne suñ nekkee ñoom kenn mun nañoo wax de mun wax lu set waaye suñ nee si si biir rek mbooloo li leen an daj daal mooy li ñuy wax mob behavior dangaa gis ñu tàng ñu wax loo xam ni ko du because eh, lifin bi bi am na tam dañ am lu wax impulse control problem. duñ dañ dee wax balaa ñoo xalaat mel ni koo xam ne mënuloo toog te gàmbul wala mu loo toog te bàyyi cigarette. dafa chronique wala mu loo toog te doo wax am na ñoo xam ne day alcoholic. Hmm. dañoo wax alcoholic. <laughs> ñun def nañ expert mooy waxkat bu bëri. <laughs> waxantu waxantu waxantu. Ah, ñun def nañ expériment ak students yi ma choose ay.